برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باغترابي برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باغترابي برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باغترابي man faasa bil hayaati auzu billahi mina assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki julli yi mbokki taalibe yi mu mel ni ñoo ngi tey ji gaawu fukki fan ak juróom benn ci weeru juin dëpp ak gaawu fukki fan ak juróom benn ci weeru tabaski maam Cheikh Issa Diène bàyyi ko woon fii fukki fan ak ñeent ci weeru tabaski bis boobu nag ñu am ndigal ci sëñ Abdou Latif Diène ci fédération bi fekk fara diwaanu Italie ci ñaanal maam Cheikh Issa barki démb lañ ko doon ñaanal ci Daaru Salaam Diène ci jiital sëñ Abdou Latif moom sëñ Mbàkke jabatu sëñ Mbàkke Diène yëpp di ko def ñu toog ak nag ci waa fédération bi mu mel ni sëñ Matar Cissé mi ngi bàyyi ko Toscana Euh, nekk fa ay jàmbaar Baye Abdou Ndiaye ñoom ak sëñ Mor Fatim ñoom ak sëñ Sidou Dieye ñoom xam naa ku lim doom matal waaye jàmbaar yooyu yëpp ña nga fa sëñ Matar mu mel ni bu ñu doon laaj ci fédération Maam Cheikh Issa bi nga xëy moo faral fii ci diwaanu Italie nu ñu doxee foofu ci Toscano ak fu ngeen mu yegg fa ci nga xam ni dañuy def dëkk bu ko yóbbu bu at ma delloo ñu dellu seen ñu yóbbu ko ci beneen dëkk. yaakaar naa bi ñu ko mujjee def lu jiitu mbas mi rajo Emilia lañ ko defee woon lu jiitu loolu ñu ngi woon fi mu nii te bu ñu jógee fii ci Milan itam fas nañ dañ ko yóbbu ci beneen gox kon sëñ Matar jox la kàddu gi nga wax nu sa xalaat ci Toscana ak euh, na fa liggéey bi doxee bisimilah. bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Abdou Khadir Dia jërëjëf ci kàddu yi nga yëkkati. te kenn ku nekk itam xam ne sa taxawaay ci liggéey seex Sa jenn bi xam ne sa taxawaay itam ci liggéey Serigne Touba yëpp ci modèle fonctionné ci yëpp liggéey ñoo ngi lay sagal baax di sant bu baax itam di siyaare itam waa fédération Cheikh Sa Dienne bi ci seen Sidi Diop ñu ko jiite ak képp koo xam ne ñu ngi bokk ci liggéey bi ñun amuñu ku dul Cheikh Sa Dienne amuñu lu dul liggéey seex Sa Dienne bi man Makhtar Sy ñu nekk féete ci Toscana Toscana gën féete nag ku nekk xam na leen ci liggéey Serigne Touba yëpp lu mën a ci liggéey Serigne Touba yi xam nañ ne ci liggéey Serigne Touba yi rawatina liggéey Cheikh Sa Dieng bii xam juróom ña nekk ci tool bi bëriwul fa wante ñu ngi taxaw ci liggéey Serigne ak liggéey Cheikh Sa Dieng ci tur ñi nga xam ne ñooy jëwriñ ñooy mu tudd ci ña ko jiitu woon muy Serigne ma Fatou Niang Serigne Abdou Ndiaye Serigne Sidi Dieye mi xam ne moo ko yor jamono ñuy toll. seen liggéey yëpp seen taxaw yëpp seen bëgg-bëgg yëpp ñuy liggéey Cheikh Sadio Diagne lii nga wax nag ci liggéey bi ak fédération bi ñu ñuy doxee ñu xam ne ku nekk gis na fédération Cheikh sa Diagne bi ñu ñuy doxee ci Toscana ak ci ci ci Touba Italie gépp ñu itam ñu am yéene lool mu àgg fii nga xamante ni nii ko dëkk yi ko liggéey di ko liggéeyee ci Milan ak fépp fu mën a doon ci ci Italie àgg ko fa ñu am yéene ci barke Cheikh Issa Diène mu àgg foofu noonu ci Toscana ndax Toscana képp xa képp ku nekk ku nekk xam ne liggéeyam ci liggéey Serigne Touba yi kon rawatina liggéey Cheikh Issa Diène bii am na yéene mooy soññ sama bopp di soññ bokki taalibe Cheikh Issa Diène yi nekk ci Toscana ñu xam ne kat ku nekk gis na liggéey bi ñu taxawee ñu jëme ci kanam kon nag am war nañoo posté bu toll ne. ñu itam ñu àgg foofu am yéene dalal leen fa ci liggéey Cheikh Issa Diène màggul Cheikh Issa Diène gi nga xam ne ni nga waxee ne Cheikh Issa Diène moo ko waxoon si Mbàkke Diène fan yii ñu waxoon ko am nañ yéene ñu àggal ko foofu ñu ngi ñaan ci barke Cheikh Issa Diène lépp loo xamante ne ñu ngi koy liggéey Cheikh Issa si liggéey Cheikh Issa Diène bi ñun waa Toscana kenn duñu ci raw am nañ yéene jooju am nañ postef boobu am nañ pas-pas bi yàlla nañ ci àgg ci barke Cheikh Issa Diène Cheikh Abdou Khadir bu ñu ci ñoon dañ am yit yéene ju kawe lii ndax jëf ji mat ko lépp mat na ko wante suñ kàddu ñu ko wax nag ci kanam ci ta ci kàddu yi suñ ma fàttali ne sëñ Abdou Ndiaye sëñ Sidi Dieye ak waa Toscane yëpp ñoo ngi ci pas-pas ngir liggéey Cheikh Issa Diène ñoo ngi jégg lu baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, jërëjëf sëñ Batar euh, xam naa am na sax beneen laaj bi ma la bëgg a laaj waaye daa mel da nga ko laaj sa bopp tontu ko muy bis bi ni ko ñëpp defe ngeen defe ko ndax jàpp naa Toscane bu ko defee. dana ci wane leneen sax ndax Toscana xam nañ leen bu baax ndax ñun daanaka mën nañoo wax ni membre Toscana lañu liggéey bu ñuy liggéey dañ koy ànd ak ñoom ci suñu wetu ndeyjoor itam suñu jëwriñ sëñ Assane Ndak mi ngi fi tooge fara diwaalu Touba rajo Emilia nga ñaan gi jóge woon Baye ñu dina rek euh, foofu ci ak Parma ginnaaw ba mu fa jógee ñaan gu solo. Euh, loo ciy doole ci soññe rek boo xam ne day jëm ci pour tànk yi nga xam ni euh, ñoo leen fekk ci réew mi te fekk leen liggéey bi ngeen di ko doxal li ngeen war def yëpp def ko ci wax dëgg yàlla kon nga def ab soññe rek ci bisu maam Cheikh Issa Diène bii bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen sama mbokk kër maam Cheikh Issa Diène yi maa ngi leen te di leen siyaare te di leen gërëm te di leen jox seen wàccuwaay. dama bëggoon ngeen may ma tuuti rek ma siyaare euh, mooy ma siyaare directement Cheikh Sadio Diagne nekk fii muy surtout man Cheikh Sadio Diagne toog fii siyaare leen ci jiital ci euh, siyaare na ñoom ñëpp jox leen seen wàccuwaay te xam ne ñoom bis bi buñ fi ñëwee rek mooy wàllu bi rafet na ni war a rafetee waaw kon nag ñoo ngi leen di siyaare jox ñu wàccuwaay bi loolu di sant mboolem kër yi jiite fédération bi ñu ko mën Sidi Diop Baye Taalaka Sidi Fall waxul bëgguma lim sax mel ma damay juum mbaa duma matal waaye nag wax dëgg yàlla def nañ seen kéemtalaat kattan ci lépp liggéey bi ca kanam ñu nag amuñu lan lu naan sax sa jànn wutuñu feneen leneen liñ soxla lépp ñoo ko wuti kër naan sax sa jànn waaw. bu ndab yëpp tegewoon yëpp foofu dellu ndab wu ndawal maam Cheikh sa jenn nañ ca ndawal maam sa jenn nag lañ soxla ci dañuy daw guddi ak bëccëg kon nag ñoo ngi ñaan ci yàlla yal nañ ci yàlla yokk xiir te may nu kattan may nu wërsëguñ ci def may nu ak wër ba bu ñu wootee ñu mën a wuyu si buñ laajoo nu mën a joxe ñun nag ca diwaanu rajo Millié dañ nekk ak Parma ña fa nekk ñëpp ci taalibe maam Cheikh Sa maa ngi leen di sant gërëm gërëm te xam ne ay jàmbaar lañu jàmbaari fàkk tëj lañu wallaahi laa sim ci yàlla laay gin amul lenn loo xam dañ leen ko xam ñu dellu ci ginnaaw amul lu ñu leen di laaj te duñ ko joxe waaw mbooloo mu néew lañ mu am pas-pas te yàlla na yàlla yokk fan fédération bii nag man damay ñaan rek fépp buñ ko bëgg a yóbbu yal na yàlla ak yonante bi ak maam Cheikh Sam may kattan buñ ko fa yóbboo waaw dem ba Italie gépp xam kan mooy Cheikh Saad Dieng fu waay nekk di doomu Sénégalais nga xam kan mooy maam Cheikh saa Dieng ndax liggéeyal na Serigne Touba loo xamante nii jombante na ak ñu ñàkk koo xam ñépp dañ ko war a xam te xam nga ci ñun ñii la ci am lu ñu war a dox te it may yokk a dellee képp kuy taalibe maam Cheikh Saad foo mën a nekk war ngaa taxaw di xoolaat sa bopp muy gudd muy bëccëg di xoolaat sa bopp te xam ne kenn wër laa fekk ci lu ñàkk fayda kenn wu laa fekk ci lu ñàkk fulla kenn wu laa fekk ci lu doyadi waaw mu ragal ko deram ba mu set wécc doog a jéem a ragg suñuy der waaw ndax nun de nooy yaa ko nu maam Seex sa jenn ci kaw suuf waaw ku nu xool rek naw nu naw nga Seex Isaa waaw loolu nag laaj ci ama mënu maa soro sax ndax li ma bëgg wax lépp mënu ko wax wante nag yal nañu yàlla defal jàmm defal ñu wér akuk akuk man akuk dal akuk fekke ak dégg akuk topp ba lañ soxla lépp mat amiin yaa rabbal aalamiin baax na jërëjëf sëñ Abdou Khadir Dia jërëjëf baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Ajan Ndak bu Touba rajo Emilia ku la dégg sa wax ji xam ni xol ngay waxe waaw noonu la mën a deme de ndax kenn la ci mbokki sëñ Daaru Ngañ Tandine yi boo dee mbokkum sëñ Daaru Ngañ Tandine ba pare doon mbokkum sëñ Daaru Ngañtaan ne ba pare nekk taalibe maam Cheikh Adiane rek loolu doy na taalibe kon mel ñoo ngi toog ak président fédération bi sëñ Sidi moom xam naa daanaka mën nañ koo bañ a laaj xanaa dañ koy wax mu ñaanal te soññee ginnaaw bu dalalee sëñ Abdou Salaam Jenn mu nga xam ne moom la sëñ Abdou Latif Yagal nga xam ne sëñ Tuubaa léppam day nuroo ndax fekk dafay magam waaye Cheikh Bass Abdou Khadir bu ko sëñ Muntaxaa yebalee fu mu yegg rek mooy sëñ Muntaxaa loolu itam kon mel na feeñ na ci jataay bi kon bàyyi si jur yow mi nga yaay président fédération ba pare dëkk Milan jiitewaat liggéey bii xew fii ci Milan mu jox la suñu kàddu rek amuñu fuñ lay tàmbaloo amuñu fuñ lay yemloo ndax yaay sunu lépp te doy ngeen ci lépp eh, mu mel ni yaakaar naa ku fi teew rek sa xol seet na ci bés bi bisimilah bàyyi si bi ci suñu wetu ndeyjoor itam suñu taam ka bu Touba Dionowa mi ngi toog ba pare dañ ko jox kàddu gi moom itam bàyyi si bi.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 yàlla nañ ci am ngërëmal sëriñ bi yàlla nañ ci am ngërëmal sëriñ bi di ñaanal Cheikh Abdou Latif Diène suñu borom dolli ko kàttan lépp lu ñu yéenee liggéeyal maam Cheikh Sa Diène euh, mu liggéeyal ko ànd ko njabootam maam Cheikh Sa Diène gépp rek ah, ah, noonu donga yi waaw ah, di sant yàlla baax ci liggéey bi nga xam si suñu borom yàlla dogal na ñu ànd ci liggéey bi bokk ci ten fekk féete fii ci Milan di mën a wax ci ñaari cër ci Milan ak ci fédération bi di am mbégte ak cant dong nag ginnaaw bi ñu sant suñu jëwri ji nga xam suñu borom yàlla dogal na monsieur Abdou Dieng dañoo yabal kenn ci njabootam monsieur Abdou Salam Dieng mu ñëw ci jotaay bi fekk fi ay kilifaam bi yàlla dogalee bi ñu ko génnee lépp sees dana xalaatuma toog ci sees sama kilifa fi nekk ah, loolu di soññee ci ñun dongo yi. kon tey fi mu toll kat bari na loo xam si war nañ ko xool nun donge yee rakk moom dañuy bokkub lal te ñoom ñee ñi royukaay bi ñoom bokk bokkub lal kon de nun war na xoolal suñu bopp ndax ñoom dañu ngi wanu yoon waaw di ñaan suñu borom dëgër seen taxawaay te saxal xéem na ci ak bi diggante soññi waa Milan gii nga xam si yàlla dogal ne fii lañ ko defee te tàmbalee woon ko fii Milan mu tàmbalee ci xeetu Cheikh Dóoru Ngañ Tandine bu ma nee Cheikh xeetu Cheikh Dóoru Ngañ Tandine mooy Ousmane Diagne liggéey bi Ousmane Diagne moo ko daa tàmbalee ci këram ga ànd ko ñenn ci taalibe yi ku mel ne man ak ñeneen ak ñeneen liggéey waa ji baax day yaatu mu dem ba xajutul ko këram dem ci am ndigal ñu am ci ndigalal maam si maam Cheikh Sène mu soxla fi kenn ñu di ko mu dem ba mu yaatu lool yëpp li ko xëccoo kenn ku ne soxlaw koo jot sëñ bi joxe ci ndigal ne nañ ko yaatal. te lépp luñ ciy def ñu woyofal ko ñëpp mën cee ànd loolu ab soññe la kon bokki euh, Touba Milan ak li ko wër rawatina noonu euh, tout tànk suñuy doom ak suñu njaboot suñuy rak wallaay génn ci liggéey bii liggéey maam Cheikh Sadio ni bii nii ku ci feeñ dootoo nëbbu mukk mukk mukk fii li ngay sàkku ci adduna dañ ko am la ngay sàkku àllaxira dañ ko am kon tout tànk yi génn leen wallaay la suñ génn ci liggéey bi njariñ doo nga ci ne suñ bopp la ñuy liggéeyal de man na xam naa ci dara kon génn leen ñu ànd liggéey liggéey maam Cheikh Sadien bii di ko def ngir jëmm yàlla ak seex Cheikh Sadien kenn ku ne nag na nga ci taxaw langa ci ci féetewoo bu ci xool ne lenn nga ci doon lépp nañ ko delloo boroom boroom mooy seex sa Sadien man na lépp loo xam si jàpp nañu féetewoo nañ mi ci cër ba la ñuy tudd waaye man soxluma ci lenn xanaa naa ci am ngërëmal sëriñ maam Cheikh Sadien laay laaj wax waaw di ko yéene ñëpp nag. mooy fédération bi li ñu yéene mu dem diaspora bi nii xam si groupe yi def nañ wër na diaspora bi ba ñuy ànd liggéeyal maam Cheikh Issa Diène di ko jëbbale Touba kon liggéey bi war naa mën a yaatu bañ nga génn fii di ko yóbbu ci yeneen dëkk kon ñoo ngi sant yàlla bu baax xam naa jëwriñ bu ma tàmbalee lim du ma amatale waaye sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ñi nga xam si ñoo ko daa ànd ak ñoom ci liggéey bi te yàlla dogal na suñu borom am tuum ci ñoom ñoo ngi leen di ñaanal suñu borom wéral leen ba mu ci liggéey bi du ma jot ci ñaan maa ngi ñaanal a nga xam ne ànd liggéey bi daal suñu borom wér gu leen yàlla na diis ci liggéey bi ñu am jafe-jafe yàlla na ko yàlla saafara ci barke borom jenn barke Cheikh Darou Gagne tànd mi sama xol sedd na lool te bil bi bis bi waaye nag lépp rek borom jenne lépp borom jenne duñu ci dara nañ ko delloo borom jenne te doolee góorgóorlu xam naa liñ soxla a wax duñ ko mën a wax waaye nag bëgg nañ sant nañ sëñ Doxaadi Dia jërëjëf jërëjëf yàlla na taxawaay bi yàgg yàlla nañ am ngërëmal maam Cheikh Sa Dienne te yàgg ànd ak liggéey bi Cheikh Abdou Latif Diène salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Baye Sidi Diop président fédération waaye dalay itam bés bi wax dëgg yàlla suñu xol sedd na ci yow trop eh, wax ji rek ku ko dégg ngay waxee waaye yàlla na ci sa rek ngërëmul maam Cheikh noonu nga ko waxee eh, sëñ bi yàgg fi nu yàgg fi te itam ñi ñuy déglu ñëpp déggal fédération ndax noonu nga ko waxee fédération bi am na groupe boo xay ni adduna bi yëpp la boole la commencé Brésil. ba ba ngay dem Afrique du Sud ñëpp ci bokk kon kenn képp kuy dégg suñu kaddu rek na nga xam njabootu maam Cheikh Issa Diène gi ñu ngi dañuy génn buum ndax mas nañu fukk ci kanam sëñ bi muy li ngeen fi xaalis am na solo trop waaye boole xaalis bi boole mbooloo mi la ko gënal kon ñun gën ci mën a boole mbooloo mi rek nan boole mbooloo mi kon bâche moom lay jaajëfal xam naa ne na ci xat-xat bu ko defee mu jox kàddu gi suñu jëwriñ sëñ Daam Ka bu Touba mu feeñal ci yéenéem euh, wax nu nu liggéey bi doon foofu ci Genoa ndax bis bi demoon na fa su jógee Laay Pen Abdoulaye Pen moo toog sunu loxo càmmooñ ban ko jox kàddu gi moom itam mu wax ci turu Touba Brescia bisimilaay sëñ daam auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Abdou Khadir ñu ngi lay siyaare baax ci bis bu bi nga xam ne ci la ñu ñaanal suñu sëriñ muy maam Cheikh Issa Diène suñu yaakaar àdduna ak alaxira di ñaan suñu borom yàgg koo ñaanal ci barkib Cheikh na Ahmadul Xadim bis bi nag bisu cant la rek ak ñaan waaye nag cant gi ak ñaan gi ñu jël ko di ko waxee ci suñu kàddu jëwriñ mi nga xam ne mooy Serigne Bassirou Ka mu teg ko ci loxol Serigne Mor Mbaye ak Serigne Cheikh Diouf ak Serigne Doudou Sall Serigne Tamba ñu mbay woon kenn Ah, ndax bis bi saa yi jubee ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen i yitte ñu ànd ko ñun seen liggéey seen doole seen ñaq lépp ñu jël ko jox ko Cheikh Issa kon loolu dañ leen ciy jëloon di ko ñun ñëpp dëgg yàlla kaar bi boo ko xoolee daanaka soppee Cheikh Issa rek ci nekk xam nga mën naa mën naan la taalibe yi xaw nañ ci noonu lool waaye nag ay soppee Cheikh Issa rek ci nekk kon nag cant gi ñaan gi yëpp ay def nañ ko teg ci loxo sëñ Mor Mbaye bu ñaan lépp ñu si ñaan Cheikh Issa jëloon nañu ko. muy am loo xam ne te di sant it waa kuréel gi ñoo nag chaque jour saa ñu jógee rek dañu naan dañu jóg bu ñëwee même bu ñu leen joxoon sax benn minute ñoom dañ ciy bëgg ndax dañ naa bis boo xam ne ñun ñëpp ko bokk nañ kon ñoo nag ñu ngi leen di sant di leen jëloon di ko ci ndigalu su tey jëwriñ Cheikh Bassirou Thiam ak ñu ma àndal bu loolu jàlleet ñoom jëleen jëwriñ joo xam ne ah, muy jàmbaar lool ci liggéeyu Cheikh Issa Diène bi ak liggéeyu Cheikh Ahmadou Khadim muy Serigne Cheikh Diouf ñu seedal ko àdduna bépp xam ne leen dafa nekk nit koo xam ne liggéey bu jóg day ànd ak ñoom moog suñu buubeeg baa tàmba ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn waaye tey joo am koo xam ne mu dëkkoo delloo waat bu ko lit muy Serigne Cheikh euh, ndax euh, dañ koy commencé ci moom nag waaye du yem ci moom ndax référence la koo xam ne boo ñëwee gannaaw boo nekk yëpp Serigne mën naa doo ko xam liggéey bu jóg ñoom ñooy ànd ak ñoom yow xam nga ci dara ba bii nii fu mu leen di doon fu ngeen fu ngeen ñu waree dañuy fay fekk dañuy fay fekk kon loolu ñu ngi santa sant baax di seen ñu waat tout tànk yi nga xam ne ñoo nekk janawaa ndax suñu waajur yi dañoo xàllal yoon yi ba mu leer nañu buñ ci tuddee ku mel ne suñuy waajur bàyyi Sulayka bàyyi Cheikh Moussa Ka bàyyi Youssou Ka bàyyi Serigne Fall ñoom ñëpp buñ ko jëlee mën naa am dañu matal ah ñoom ñëpp ñoo ñu xàllal yoon ba mu leer kon ñun ñi nga xam ne tout tànk lañ war nañoo gën a futteeku waat liggéeyaat xam ne liggéey bi kat lu Serigne Touba naa kenn defu kenn dara lu waay def boppam te fi dafa mel ni ballu teg rek boo ko dóoree day dal si waat ci kaw rek kon naa ngi soññ ndaw yi nga xam ni maa ngi ñoo bokk génération ñu gën a futteekuwaat xam ni ne ko Cheikh Abdoulaye waxan laa bu laajan tey bi sax dañ ko ko waaye ñun aw ñàkk rek la ñuy laaj kon nag dañoo war a jëlaat suñu bopp lépp doxaat ko suñu maa ngi wàcceewaat foofu samay kàddu di di sant ak di ñaanal xam ne ñu ko defee fii ci Touba Milano lépp luñ fi ñaan rek suñu borom nanguñu ko di barke Cheikh Issa Diène yàggal fi Cheikh Abdou Latif Diène lool ak Serigne Cheikh Alim Diène suñu yaakaar àdduna ak ak Serigne Abdou Salam Diène ak njabootu maam sëñ Abdou Khadre ñoo ngi jël njëkkal li ak sant gi teg ko ci sa loxo nga tegal ñu ko ci jëwriñ ñi yëpp ndax yéen it soog seen yéen a ngi soññee yéen a ngi te ba ñëwee te teg seen i laxasaay damay wax ne ñun bu ñu xoolee ci yéen rek yaakaar naa waru leen ñu wax da ngeen a dañoo sax ñu leen yéen toog leen ñun ñu def lépp te chaque jour yéen a njëkk xëy yéen ñu ci mujj kon ñun nañu reyaat yéen ak bu mayee ci yéen rek lépp dina baax ñu ngi wàcc ba suñu kàddu wasalaamaaleykum baam ko Touba Dienawa jërëjëf sëñ Dame Ka jërëjëfati ndax euh, kontaan nañ ci lool euh, sëñ Cheikh Diouf nag biñ ko tuddee sama xol seet na la ndax sëñ Cheikh Diouf man damaa fan njënd njënd la ndax bari na sax mënuñu ma bokk ak moom euh, ginnaaw bi laa xam ni sëñ Cheikh Diouf mii mën na fee représenté sëñ Mountakha ci réew mi ndax nit la koo xam ni diine lislaam ji moom la téye ci loxoom yemale ñëpp kon boo boo boo dee jot li cant gu jëm ci moom. cant gi ci nun la war a tàmbalee ci nun la war a yem kon dañ koy sant waaye lépp dañ koy soppi ak ñaan di ko ñaanal mën ko waxaa Jonowaa yaakaar naa man bi may ñëw si leen fekk sëñ Moussa ñoom nekk fa ak sama benn baay bu ñuy wax Magay Caam euh, euh, baay Serigne Fall ñoom ñooñu yaakaar naa boobaak léegi mi ngi bëgg a yàgg ñu yóbbu addi ci sëñ Abdou laat ba nëga ni ñooñu ku leen fi fekk nag lañ nekk war nga caa jéem a nekk kon sëñ daam ñoo ngi lay jaajëfal bu baax di jox kàddu gi nag Cheikh Abdoulaye Penn bu ci waa Brescia moom itam mu yëkkati kàddu ci turu waa Brescia bisimilah sëñ Laay di kenn ci liggéey bi moom itam nekk Touba Trieste di borom Pastef daan ko jox kàddu gi waaye mu tàmbale ci Cheikh Abdoulaye Kane bisimilah sëñ Laay. auzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñun waa fédération Mame Cheikh Issa seen ndongali Abdoulaye Penn bu Touba Brescia moo leen di nuyu te di leen ziyaara te ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm di loolee santaat yàlla bu baax ci sunu bis bi nga xam ne mooy bisu sunu jàmbaar ji sunu borom séddiñu ko muy sunu maam Cheikh Issa Diène kooku bu ñu ci laajee wax dëgg yàlla dinañ ci sawar lool ñoo ngi yëkkati sunuy kàddu nag ci turu Serigne Maguette Gueye bu Touba Brescia ak Serigne Gora njaay ak Serigne Cheikh Lagan ak mboolem jëwrin yu ñu bokkal nekk Brescia ak sunu maam ja muy Baye Madja di santaat bu baax ci bis bi di rafetluwaat daal ginnaaw sunu borom dimbaluwaat nañu ba bis bi agsiwaat ba nu koy doole taxawaat di doole ñaanalaat maam Cheikh Issa ci bis bi kon nag ñoo ngi ci sant bu baax te di gërëm mbokki taalu bi yëpp di ñaanal sunu xalifa muy Serigne Abdou mu doole yàgg ci sunu kanam te ànd ko wër ak mboolem ñi mu bokkal maam Cheikh Issa Diène ñëpp di ñaanal sëñ Muntaxa mu doole yàgg moom ci suñ kanam te ànd ko wér ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ Tuubaa yëpp ak dong yëpp ak taalibe yi sëñ Abdou Khadre nag suñ maam Cheikh Issa moom suñu ci laajee dinañ ci sawar lool ndax nit bu fekkente ni suñ borom dalaa féetale moom nga juddu bokk ci ay sëtam kon boo ci laajee dinañ ci sawar tontu lool suñu maam la maam la woon joo xam ni bu muy dem ca sëñ Touba wax dëgg yàlla fekk na fa ñu bari waaye suñ borom dimbali na ko ba am na fa loo xam ni ñeewul kenn kon nag kooku ku ca bokk ku nekk fuñ la fekk rek war ngaa nekk koo xam ni ab royukaay ngay doon kon ñoo ngi doole soññ suñu mbokki taaliba yi ñi nga xam ni moom la ñu bokkal sëñ Issa ak ñun bokkal sëñ Touba ñu doole góorgóorlu ci ak taalu bi te xam ni ak taalu taaliba ak Pastef fépp fu murit egg moom moo ko fa eggal suñ maam Cheikh Issa nag li mu am ci sëñ Tuubaa Pastef ak képp moo ko fa àggale akub taalu bi ndax kat eggoon na ci sëñ Tuubaa foo xam ni new ma ñu bari egg nañ fa waaye moom am na fa mu yeggoon ci sëñ bi ndax li wolof yi wax bëgg buur ak buur bëgg la bokkuñu sëñ Issa daa bëggoon sëñ Tuubaa waaye sëñ Tuubaa dafa bëggaloon boppam sëñ bëgg sëñ saa bëgg koo xam ni am na fu mu tàmbalee na amul fu mu yem ndax dégg nañ ci mag ñi ñu wax ni sëñ Issa eggoon na ci sëñ Tuubaa xam ni bépp jataay bu sëñ Tuubaa di woote dafay laaj ndax Isaa teew na bu Isaa teewee mu tàmbali waxtaan wa bu Isaa teewul mu ni tekk kon kooku am na fu sëñ Isaa féete woon ci moom kon nag ku bokk ci njabootam wala ngaa góorgóorlu bu baax fa mu tegoon tànkam boo mënta egg foofa tam nga jéem a góorgóorlu ba nga xam ne fu mu gestoo seen la kon nag yal yàlla doole yàgg suñu kilifa yi ci suñu kanam te nu yàgg taxawe bis bi te doole cee am ngërëmul maam di sant sëriñ Mbacke jenn moom maam Cheikh Isa mi nga xam ne moom la sëñ Isa joxoon ndigal ci bis bi mu ko taxaw moom ak njabootam ak di ñaanal xalifaam bi fi nekk muy sëñ Abdou Latif moom sëñ Mbacke di sëtu sëñ ma jaw faxa taxawee bis bi moom itam na ko waajuram taxawoon moom ak i rakkam yëpp ak ñi mbokkal njenn ñëpp ñu doole yàgg ci suñ kanam te tey ñaanal soxna Mbène jenn mi nga xam ne moom moo féete ci Brescia ak li ko wër te sunu borom baax ñu ko mu bokk ci leeri sëñ Mbàkke Jenn ñoo ngi koy sant di ko ñaanal di ñaanal boroom këram di ñaanal mbokki taalu bi. bisimilah bisimilah kon nag nga dégg. Eh, ni ñu def explication ndax sëriñ bi jóge na Sénégal mi ngi France ñu ne jël na avion spécial dem na bi muy dem mbooloo mu néew la àndal man sama yoon nekku ci ci sëriñ bi li tax mu dem. te it leer lu ko kenn waaye man li ma gëm mooy jamono jaxasoo na jaxasoo koo xam ne bu sëñ Tuubaa jugee Europe bu jugee Afrique jëm Europe lu ne mën naa lijjanti ndax li lépp lépp Europe la lijjee te li baax lépp Sénégal ne kon man li ma jàpp mooy ñun moom xaw ma kan waaye ñun moom war nañoo sant bu baax a baax a baax ci ñëw bi nga xam ne sëriñ bi ñëw na ko France te boo ne France kon muy Europe kon ñun ñëpp war nañ ñaanal Cheikh Mountakha mu bëgg mu am ko ndax. jamono toll na foo xam ne moom kese ko mën a lijjanti fu ne nii te loolu ñëpp kon man bis maam Cheikh Issa Diène bi li ma ciy fas mooy li Cheikh Mouhamadou Mountakha bëgg yàlla na ko am waat Sénégal ci jàmm te li may wax rek murid moom du seen yoon nekk ci sëñ bi li muy def li muy bëgg ak nam koy defe ñun daal li ñu yitteel mooy sëriñ bi jóge na Sénégal jël na avion tuur na jaww ji wàcc na France yàlla na lépp di jënd ko ci barke Sëñ Touba te man loolu man lu ma gëm la kon li nga wax rek li may ndax xam nga ginnaaw dañoo nekk jamono te ngay dégg lu ne damay fàttali rek ndax it man damay jum kañ di jóg waaye nañu fàttali rek maanaam mur gi mooy ñun suñu yoon nekkul ci sëriñ si ñun nañ nekk ci li war a nekk dox lu ñu war a def te xam ne loolu moo ñuy loolu moo ñuy jural njëriñ waaw waaw loolu waaw waaw leneen li ci li ci li li ci li ci nag mooy di fàttali ñëpp rek li nga xam ne moom lañ dégmal tamit màggal kon day mel ne bu jógee ci bis sa Cheikh Issa gi day mel ne wàccee waaw wa waaye digg am na lu am na lu xew mooy mag si Abdou Khadre <laughs> waaw kon kooku le la ah. waaw euh, gis nga diggante maanaam mag ñi sëñ bi dafa am maanaam dañ cee war a génn dimanche bii weesu waa kër sëñ Abdou Khadre ci leen doon daje Milan ah. sëriñ soin bu jenn nekk fa ah. biñ ñëwee doxali muri mu toog rek waa kër sëñ Abdou Khadre lijjanti at yi ñëw jox ko ci tur sëñ Abdou Khadre mu jëlaat loolu am lu mu ci teg ñu def naa ko addi Sëñ Abdou Khadre dégg nga waaye xam nga murid rek am lu ñu diggante waat delluwaat ci mun leen dara waru ci man ndax man Sëñ Abdou lu ma defal moo tax lii damaa bëgg ngeen waaw kon yooyu noonu moo rek may may xam ni lu ñu war di fàttali la euh, li may mujj rek mooy du soñu mboolem taalibe Sëñ Tuubaa yi ndax Sëñ Abdou Khadre euh, ñun man ñeewu ma ñeewu France. ñëw ma Angleterre ñëw ma fenn ndax suñu abdoulaye da nga daan dégg am na sama benn mbokk taal bu fi nekk dina tudd turam Baye Dame Baye Dame Thiam dafa ni bi muy tàgg suñu abdoulaye ni ko damay dem damay dem damay dem France sëñ bi dafa ne ko ba Italie nga jëm dafa ne ko ba Italie nga jëm nee na mu fekk mu ne ko demee Italie Italie baax na kon dëgg na nag fu ne ubbeeku na ku nekk ak fa nga war a dem waaye ñun ñu ñëw Italie moom nañ téye Italie bu baax a baax te fonk te li ma la de dolli mooy. foo dem baax nañu mais fii dañoo am manaam suñu borom xam nga xam nga réew bu fa diine nekkee donte du suñu diine waaye am na lu ñu gëm waaw dañu neex defal te loolu day day feeñ ci jotaayu tey bii ndax xam nga ni situation réew bi fi mu nii ak ci wàllu Covid ñu permettre ni lii kon am na lu am na loo ko may la la ko may nag war nga ak sa fukki loxo juróom maa ngi tuub baaxee jégalu. jërëjëf Ahmed dama lay la li nga wax Cheikh Abdoul Khadir borom Baxdaad. man alxames laa dugg këram di ko tàggu ñu ni sëñ bi nee na euh, nañ dem ba ngoon wala ku wér bi jël ngeen ni mu ñaanal la ci ma jël sama passeport war a voyage ci suba si 1988 booba ñëw naa Italie ba dellu yor séjour ma ne at ah, naa ko jox passeport bi ki taxaw ca buntu ba ba léegi damay wax sërif ni ko sërif jang dama koy wax ni ko ba tey jàpp naa yawa ndax foofu damaa gëm rek ku war ni suba laay voyagé koo xamul nga naaw jox sama passeport ma jox ko passeport mu yegg jox ko borom baxdaat ma toog ba ñu ne ana borom passeport bi ma ne maa ngi nii ma ñëw fukk fi kanamam mun ma kañ ngay dem ma ne ko suba alxames laa koy tàggu mun ma kañ ngay dem ma ne ko damaa bëgg bu ma xëyee rek dugg cootay dem Dakar mun ma nëgal bu julli bi ajjuma ba pare ma ne ko ah, maanaam moo ne mbàkke ku jël avion mu ne waaye yow nëgal ba julli ajjuma ba pare du Italie ngay dem ma ne ko billahi barke alxuraan mun ma yaakaaru na li nga doon wax yaa sama nopp ak gémmiñam bi ma xëyee ba ma demee sama kër dama leen wàccaayu kër damay gont xëy ñëw ci jumaa ji taseeg moom muy génn ci barabu baayam kere bi mu may jiite ajjuma jooju sëñ Moustapha Mbacke moom sëñ ma sàmba yàlla ko yàlla dolli leer moo sëñ ma sëñ sëñ sëñ Mahamadan Jobbe seen diggante laa toog sëñ Xaadim bi daan conférence toog suñ gannaaw ma julli ba pare dugg ci oto yi sëñ ma Samba yi sëñ ma soxna Samba yi dat son yam yoroon ci laa dugg ñëw Dakar lii sëñ Abdou Khadir defal na ma ko 1988 comme li nga wax xam-xam naa ko beneen bi des ñu ne di sant yéen waa Milan ndax bis bi ku ñuy wax Ousmane Diagne moo ko doon def ci këram ànd ko ñoom màggat Dieng mu baax ma ba génne ko ci biti ba bis bi ñëwoon Milan ba del si waat fi del si waat fi nun nu koy bëgg a li nga wax ak li ma wax lépp naan guy mar la li nga bëgg a wax xajul ci jataay bi waaw kon ñoo ngi lay jaajëfal bu rek waaw mooy di seedeel taxawaay waa kër maam sa Issa Diène xam naa loolu sol loolu naan wax ju wax ju bay ci nopp la waaye nag ginnaaw ñoo seq ñum liggéey bi il faut loolu ñu xamal ko waa kër maam sa Issa Diène ndax xam nañ ko waaye seen taxawaay mooy li nga def léegi rek bu tuddee naar wadd tudd sëñ Moussa Diène boo tudd Moussa Diène rek da ngay daal di mën a yóbbaale ñëpp waaye ñun ñëpp seen taxawaay ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ràññeeku na yal na leen yàlla jàppale suñu borom dëggal seen taxawaay yaa eh, fi Abdou Khadre waxoon ne yaakaaru la ko ñëpp rek incha allah jërëjëf Dia jërëjëf. jërëjëf sëñ Ahmed jërëjëf sëñ Ahmed kon mu mel ni maa ngi toog ak sama sëriñ sëñ Mor ci njabootu sëñ Daaru Ngañ Tandine sëñ Mor ñoo ngi fi ci Milan tey fukki fan ak juróom benn ci weeru tabaski yàlla dogal mu dëpp ak weeru tubaab bi itam di weeru juillet di fukki fan juróom benn ñu doon ñaanal maam Cheikh Issa yenn ñaari fan ci ginnaaw ci Sénégal Daaru Salaam Njenne dëkku sëñ Mbàkke Jenn sëñ Abdul Latif taawam bu baax bi euh, xalifaam bu baax bi taxawoon ko euh, nga doon kenn ci njabootuk sëñ Daaru Ngañ Tandine jóge Emilio Romagna doon kenn ci liggéey bi itam wax dëgg yàlla ñu jox la kàddu gi nga def ay soññe ci bis bi nga xamante la ñu nekk baax na bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa kër. maam Seesa Jenn te bu ma nee waa kër maam Seesa Jenn mooy wax naa waa kër Serigne Touba te boo waxee waa kër Serigne Touba wax nga mboolem umma l'islam bi yëpp kon sëñ Abdou Khader e, li nga xam ne moom nga wax muy lu am am solo muy bés bi nga xam ne bésub maam Seesa Jenn la waaye tamit muy bés boo xam ne dañ ci am dugal. ki nga xam ne moo fi nekkal maam Sey Sa Diène di Serigne Abdou Latif Diène di ko ñaanal mu yàgg fi lool tànn ko wér ak mboolem njabootu maam Sey Sa Diène gi ak taalibe ak soppe yi euh, li tax euh, may faral di ñaanaloo damaa xam ne maam Sey Sa Diène kuy ab jullit di nga sopp ku ko xam di nga sopp ku bokk ci euh, murid gi tamit moom dara amul bëtu di nga sopp tey it maam say sa jenn mbiram dafa dafa réerul lépp dafa feeñ ci saayir ak ci baatin am na loo xam ne tamit ëllëg rek lañ ci xam dara te lépp maanaam mën nañ ko wutal ay firme yoo xam ni ci sunu xam-xam yu gàtt dañ ciy teg baaraam ndax ki nga xam ne mooy Serigne Touba li nga xam ne moom la njëkk ubbi muy bëgg-bëggam nga xam ne ca gamoo la ko ñaanoon. muy bëgg a tubaab ba yàqalee loolu nga xam ne mooy jullikaayam ba ki nga xam ne moo ko taxawal muy maam Ceysa Dieng te jumaa jooju toujours maa ngi laaj waa senegal jëm jumaa moo ko jiitu Sénégal ju mel noonu dégguma ko gisuma ko déggaguma ku ma ko wax histoire nag da nga naan déggaguma waaye daal déggaguma ko jumaa ju tol noonu maanaam. bi ko njëkk a taxawal Sénégal mooy Serigne Touba jumaa ji toll noonu ki ko njëkk jox loxoom mooy maam Cheikh Issa Diène te kon loolu firnde la joo xam ne maanaam adduna bi yëpp mënatuñ ko umpale beneen bi ci topp mooy armée li nga xam ni moo nekk biir Touba jàkkaarloog jumaa ji bi nga xam ne ñoo ngi koy defar tamit njabootu maam Cheikh Issa Diène lañ ko jox te yaakaar naa loolu benn mbir bi mënatu ko umpale. ndax murid boo gis moom denc nan fa maamam wala ñu denc fa ab sëriñam wala ñu denc fa doomam wala ñu denc fa jarbaatam wala ñu denc fa mbokkam wala ñu denc fa ab dëkkandoom kon kooku moom mënatul a umpee beneen bi ci topp muy bàq ya nga xam ne euh, dëkk bu mu nekkoon dana nangu kër ya nangu suuf sa nangu mbedd ya ngir bàq ya mën a taxaw. bàkkee googu tamit waa kër maam see saa jeen lañ ko jox te ba si jamono bi yaakaar naan kenn umpaleetu ko euh, fi nga xam ne tamit mooy mbiram bu pour ëllëg loolu moom xalifa Sëñ Tuubaa moo ko wax muy koo xam ne danaan wax na yàlla ji taw mu taw danaan wax bu yàlla ji taw du taw kooku mooy Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké euh, li tax nga xam ne maam see saa am na cër bu rëy Sëriñ Tuubaa waaye am na cër bu rëy tamit ci yàlla mooy barab boobu suñ fàllu bi nga xam ne borom jennee wàcc na wala dëkkaale ak suñ borom sëriñ fàllu ci boppam dafa def loo xam ne kenn mësu koo def ci yoon wi mooy dafa yebal Cheikh Mouhamadul Bachir jenn la bi indil leen na fii ku tedd googu di sëriñ di maam Seysa Jenn ba mu ko ko indilee mu ne denc leen ko fii ci bunt bi nga xam ne mooy buntu àjjana képp koo xam ne ëllëg faatu nga ñu indi la fii ci kanamam loo manqué woon moo ko mottali kon ku ko gëmul sax jéem faa jaar ndax sëñ Fallou nee na woon xale yi de buntu dee wut ñu ko fi jaar dee nee na loo bari bari xam-xam jéem koo teggi kon nag sëñ Fallou bu waxee loolu kon lu waay bari bari xam-xam ak foo mën di bokk doo leen jéem la faa jaalale rek. ndax wax sëñ Fallou la de te sëñ Fallou moom wane na ci saayir wane ci baatin borom kun fa yàkkoon la ko suñu borom dénkoon beneen bi tamit loolu moom leer na kon muy yow man xiyaam la ko bar te maam Cheikh Sadio Dieng ci jëmi boppam moom it wax na képp koo xam ne ab taalibeem nga boo defee loo xam ne lu la war a àtteel ëllëg fii ci àdduna bala ngaa faatu dina ko isaab ndax ëllëg bëggut a jox Sëriñ Tuubaa taalibe bu taq. te kon loolu kon mooy alaxira ba léegi bu dee fii ci àdduna nag nga gis maam say saa jenn ni ne doxalee jël léppam jox Sëriñ Tuubaa ndax yaakaar naa am na at moo xam ne bu ko mujjee def fa yam la dum dani man jaam jaamaat laa ci waa kër Sëriñ Tuubaa te moo fi nekkal maam say saa jenn kon loolu rek bi ci topp tamit mooy jamono bu nekk ay xaram ay addiyaam ak léppam mi ngi dem ca ki fi nekk si Tuubaa waaw ah, kenn mësu koo dégg ci rajo kenn mësu koo dégg ci lenn nga xam ne maanaam loolu lépp day wane njabootu maam Cheikh Issa Diène gi ndax ko xool tey sëñ Baara Diène ni nga xam ne maanaam ñoo fi nekkoon sëñ Abdou Diouf Diène noonu taxawee waaye tamit ñi nga xam ne ñoo ngi déglu ndigalu sëñ Abdou Diouf tamit ñëpp noonu noonu la taxawee ndax sëñ Naar Diène yaakaar naa ni kenn du ko umpale muy borom xel kon jaaga waaye tamit sëñ eh, maam. Eh, Serigne Saliou tuddee woon ko Lantinoor waaye tamit kii nga xam ne mooy doomam di sëñ Sidi Naar tamit gis ngeen bu yàggu rek xar yi nga xam ni moom la yónnee te loolu mu yónnee bokkut ak la sëñ Abdou Latif yónnee te lee rek la ñu gis tamit sëñ Naar jenn li nga xam ne moom def na ko fa nga xam ne mooy kër Serigne Touba gi nekk Daaru mooy loo xam ne tey bu ko ab état doon def ay at yi bëree bëri la koy defee waaye moom mu def ko ci diir bu gàtt. kon loolu mooy wane njaboot gu maam Seysa Dieng mos ñoo cuune te fii ci réew mi tamit jamono bu nekk yaa ngi dégg ni ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ñu suñu sëriñu Mbàkke Mbàkke ñu ni kër gundam bu nu bu nu fa wootee dégg ku ni jenn suñu xel dana dal ndax dina am dal dina am xéewal suñu dem doo leen ñëwi loolu nag njaboot gu maam Seysa Dieng war nañu koo dégg ñaari nopp rawatina nag ñu bees ñi ñëw ñi ndax dañ leen waxul histoire Sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh Issa Diène moomu tamit am tawféex joo xam ni eh, borom daaru muy maam Thierno ñoom ñaar rek ñoo ko am ndax ci histoire murid ñëpp metti na ne maam Thierno waajuram Serigne Isa moomu Serigne Touba nee ko woon naa la wutal wéttal ba mu koy wutal wéttal waajuru maam Cheikh Issa Diène ba jël te moom it loolu mu def soxna Isa noonu la def maam soxna Mariama muy ñaar yoo xam ni firnde yu leer nañu la histoire nettali na ko waaye tamit li ci gën a doy waar muy li nga xam ni xew na ci jamono te képp koo xam ni ki gën a tardé yi nga xam ni ñoo wër àdduna léegi kër Serigne Touba yooyu maam Seysa Dieng. moo ko njëkk a taxawal ci kaw suuf ci jamonoy Serigne Touba ci ak dundam kër googu nag moo law te nag nga xam ne maam Seysa am na lu mu ko doon wax naa ko ñaari naar ak brab isa la ber ñaari naar ak brab isa nu bay fëkk ndëmi tàggaar ndëmi yooyu ak ber boobu yaatu na léegi waaye këram googu tamit barkeel na ba yaatu léegi waaw kër gun ta ubbee la ci Serigne rek maam Cheikh Diagne na ci pourcentage muy lu wér waaw ndax sëñ Saliou Mbacke waa Ndane ban defee ab daayira dem di ko ziare ji ñu dañoo bëgg kër Serigne Touba da leen ana kër Baye Saaga ñun ko ma nga fa dem Mbacke mu ne leen yéen a xanaa xam ne yéen a njëkk am kër Serigne Touba ci kaw suuf kon loolu lépp maam Cheikh Diagne am na ko ak yeneen ak yeneen. xam naa nag lii moom mun mën a teg bët la ndax nit ki jamono daa toll foo xam ne li ngay wax nit ki na ci teg bëtam waaw beneen bi nga xam ne moo si topp mooy Maam Cheikh Issa Diène na ñu fa fekkoon ña am na ñu ca mag am na ñoom ca mag waaye jiitu foofu mu jiw waaye dëggul baat bi ki xam ne dañ ne maanaam mooy baabul muridina muy Maam Cheikh Ibra jeex na mooy kii bi bunti ku mu ubbi doo jàll. te muy dëgg de ku ko weddi tamit doo am dara sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall moom am na ñu ko magoon ci kër ga am na ñu magoon ca kër ga waaye ku Moussa ku Moussa waxal tey sama doom la lay wax waaye lu waral nag mu naan maam Cheikh Sa Diène sama rakk ju baax ji te day egg ca baax nga waaw bu yemoon sama rakk ji rek nga ne lim ko a tax waaye sama rakk ju baax ji beneen bi ci toppit mu waa Ndiémé war nañoo gën a góorgóorluwaat a ñebe Xaadir ndax daa am lu am solo xam ne daa nga daa nga ko wax da nga ne yoonu murit xamul tànk bu mag xamul tànk bu ndaw kuy dox la xam te loolu maam Cheikh Issa Diène moo ko firndeel man bi ma déggee ko dama ni kii maam Cheikh Issa Diène lay lay maanaam ndax jiitu fi bokk na ci ñi ko def waaw kon kooku mooy nga ba ñu am nag dañ koy wax waaye man. loolu laa ko jàngate waaw mu la am am solo waaye léeg-léegi benn sëñ bi lay wax loo nga xam ne yow li ngay wax sax mi ngi koy wax seetantaloo ko waaye bu ko seetee ndeke sëñ bi daa mën a leeral kon nag sëñ Abdou Khadir xam naa ne programme yaatu na bari na te ñëw liñ ci yooyu ba liñ a wax lépp ci maam Seysa Dieng euh, maanaam nan ko dëgg a def yëpp ko waaw waaye nag di sant tamit mboolem koo xam ne jàpp na ci liggéey maam Seysa Dieng muy président fédération bi bañ si topp ñëpp waaye tamit di sant ñi nga xam ne ñoo toppoon maam Cheikh Issa Diène di sëti yi maam Cheikh Issa Diène yi nga xam ne ñoom it ci fédération maam Cheikh Issa Diène bi li ubbi na ay groupe ubbi na ay daayira léegi sax ci njenne ku say taalibe amal njëriñ ci fédération bi la ko copier waaw ndax ni ñuy doxee moo rafet dégg ndigal bàyyi tere kon su nga doxaa dama lay delluwaat carte gi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu. jërëjëf jërëjëf Serigne Mor tànn na wa wax ji naan gi dellu mar la kon yéen ñi doon toolu seen rajo Xassida online télévision Touba Monde bi euh, depuis fii ci Mina 16 juillet fukki fan ak juróom-benn ci weeru tabaski et ñun ñëpp ñaanu Cheikh Mame Cheikh Issa Diène jërë ngeen jëf sëñ Mbaye Faye Thiam. auzu billaahi mina seytaani rajiim ñu dellusiwaat rek euh, ginnaaw bi ñu intervenir yenn jëwriñu fédération yi ba yegsi ci ki nga xam ni nag mooy jëwriñu jëwriñu jëwriñu fédération yi ndax ba ñuy laajte ku jiite fédération ba yegsi ci ki jiite fédération Cheikh Moustapha day mel ni fédération yëpp dugg nañ ca ndax Cheikh Moustapha mooy ki nga xëy mooy jëkk a wutu Serigne Touba. sëñ naar jenn mu ngi nekk nettali ni ngar li nga xam ni moom la jëkk a bojjuloo Cheikh Isa sëñ naar neena na moo baayam sëñ baara jenn ñoo àndan bañ koy natt nee na ba mu dee moo yoroonu kayit di ko bind ba mu ñëwee ba ca suba sa ba njul ci ba ba pare sëñ baara ni ko doo wax sa maam lañ jële taayif nee na nee na nee na nee na mu daal di mu ne ko akakay mu ne ko dama wax ko lañ fa jëlee mu ñëw ci maamam ni ko liggéey ba mu ma nga yebalal sama baay démb seeti wan nan ko mu ne ko mooy dugub bi seex Moustapha Dia mu ne ko waaw nee na ma daal di koy wax li mu ma ngar la toll woon kon ñi ko xamul xam ni jamono jooju Cheikh Mouhamadou Moustapha na Cheikh Issa Diène ngar loo xam ni dama sëñ tawaw lim waaye la la sëñ naar waxan ci ay meetar guddaay ba bari na yaatuwaay ba bari na loolu ci laa mi ñu sëñ naar ku dëkk njenne nangu nga ko ci kon bu ñu dalalee sëñ Ahmad Diagne ci jëwriñu fédération yi mel na kon dalal nañ jëwriñu jëwriñu fédération yi anam bii ñuy tax itam présenté le 16 juillet bu fukki fan juróom benn ci weeru tabaski Cheikh Issa wàccoon ab liggéey fukki fan ñeent ci weeru tabaski ñu xam ni bis bi nga xam ni Cheikh Moustapha Al Karim ci la andee woon sëñ Touba ñu jàpp ko fii ci Italie moom itam war naa doon ñu war koo defe ca vertier bi kooku itam mu ci soññ mbokki jenn yëpp ndax dañoo wax ne ku mënta leb lebor itam war a mën a fay bor te ñu lebal nañ ñu lebalatuñ lebal ndax ñun kaar bi mu yëg euh, dama leen ni kaar bi nañ ko télévisé woon ko ñëpp ndax kër sëñ Tuubaa nga nekk ribu ni mbooleem ña fa nekk ñëpp a déplacé bu fekkee ci buntu kër buñ jébbal rek la fa dul jenne jenne duñ la fay di jenne jenne kon sëñ Amadou dañ lay jox bu gi ci bisub Cheikh Issa bi rek Euh, di bisu Cheikh Moustapha di bisu Sëñ Bamba di bisu maam Cheikh Aram Fall ndax maam yi daal maam Cheikh Aram Fall Saliou Diagne war a wax ci turam euh, man leen fekk na fa ñu ko mag moom maam Cheikh ko mag waaye àddoom la daan wax ñëpp waaye bu nekkee Cheikh Issa dañ sama rakk ju baax ji Cheikh Issa fekk na fay mag waaye bu ma xam ne sama mag ju baax ji kenn du jàpp menn mag mu dul maam Cheikh Ibra maam Cheikh bu dee sama rakk ju baax ji kenn jàpp jëmm rakk ku dul Cheikh Issa kon ñooñu daanaka. bu Axma waxee lépp dafay dugaale kon bisimilah sëñ Ahmadou ñu jiite it nag Touba ca kanam itam nag ci gox bii ñu féete di Limbardia ànd ko Baye Naar Abdou ñoom ak sëñ Sam Sey ñoom ak euh, Yaram ak euh, Bëgg Fallou Gueye ñoom ak Ahmadou Tall ku lim daal doo matal baax na bisimilah sëñ Axma. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke Cheikh Modou Moustapha barke borom Tundóodi jërëjëf jëwriñ Seydou Khadir Dia. Euh, di kenn ci jàmbaar Cheikhul Khadim yi li ñuy njëkk def rek mooy bis bii ñu teew ñu bisu borom njëriñ ak la gën ñu ngi ñaan ci barkeb borom bis bi yàlla na fi yàgg te wér yàlla nga fi yàgg te wér yàlla mën na ko yàlla na ko defal defal ko bépp jullit ah Cheikh Issa nag dama wax ne dañoo teel a waxtaani Serigne waaye Abdou Khadir ñi nga xam ne nii ñoo àndoon ak Serigne Touba. koo ci waxtaane rek mënoon nañ cee waxtaane ati ati at te duñ dajal waaw te duñ dajal ndax kenn ku ci nekk rek mën ngaa jiite jamono waaw sëñ Bàmba nag la kenn xamul lu mu waaye kii ñu dajale ci bis bii rek kon mënees na caa yem amu ci tuuti rek ndax damay wax ne ah symbole bi gën a rëy di ko wax ci yoonu murit mooy jumaay njaareem ndax moo fa njëkk mooy symbole bi murit njëkk am bopp nga xam ne nii kat Serigne Touba wax nañ ne fam doon samp ay bantam ca Gabon dafa julli ñu di ko daane la ka tas koroog ba mu àggalee jumaay njaareem xol ba sedd na guy kan moo def loola nag mooy Cheikh Issa Diène borom Diène nag la gëm loolu nag dafa doy sëkk sëkk sëkk rek ci liggéeyub Cheikh Issa waaw loolu doon waaye dama wax ne nit dem ci doonam nit nag di sëñ Baara Diène di sëñ Naar ñoo ñi nga xam ne nii maanaam ñoom ñoom ñooñu rek it nag kenn ku ci nekk rek mën ngaa yor jamono kon dama wax ne Serigne Touba la kenn xamut li mu dama koy wax léegi mbokkum taalibe na ko ah jàngkat boobu ma dégg muy jàng de bu bëggee njàng ma neex bu mu gaaw a tudd Cheikh Issa foofu nag Abdou ji jëwriñ Abdou Khadir li ma fiy jàngat mooy Serigne Touba kenn ku nekk lam la jox maanaam da laa doy sëkk sëkk sëkk maanaam tey jii bu doon kaamilub alxuraan bañ tas ko damay wax ne ca ngay nekk yow di léeg-léegi. di ko diima dajalewaat ba doo xool leneen la keneen am waaw kenn ku nekk rek li nga war da laa doy waaw noonu la sëñ Tuubaa mel waaw kon kenn daa xamut kan mooy ki ñu àndal kii nag ñu màggalal muy Cheikh Issa ah xam nga ne bu ñëwee ci sëñ Tuubaa ak lam fa def nam ñëwee waaye boobu it daa fees dell dama wax ne ñu ñoom ñoom ñëpp bu ñu ñëwee Sëriñ Bamba dañoo fees dell waaye li ma ko li ma wax léegi seen jëwriñ seen sëriñ boobee la kenn xamut lu mu yàlla nañu ko yàlla fayal ah kon nag jëwriñ fii nag dama wax ne njenne moom mooy Daaru Xudóos njenne mooy ñun waa kër sëñ Fallu njenne mooy kër sëñ Masamba Diop Sam ndax Serigne Touba moom mooy fépp waaw li ma la wax léegi nag kenn ku nekk nag lam la jox bu doon téereb kaamil la nga di ko tas fii ak yoomal xiyaam sa diggante du mat ndax dalaa doon sëkk waaw kon nag yàlla nañu ko yàlla fayal di la jaajëfal baaxit ci liggéey yi ñu bokk ndax lu baax lu ne rek ku ñëw ñëw gis la ca loolu nag yàlla na sax man na suñu borom a defit moom moom euh, yaag ñi nga xam ne nii ñoo bokk liggéey Serigne Touba bi nga xam ne ni nga ko waxee woon rek liggéey Serigne Touba bu ñu mës a woote rek ñun ñoo koy ñoo koy bokk di ne kenn ku ñëw it def la dara mu mën di doon comme ni nga waxee it di soññi bi nga xam ne it nag da koy wax léegi muy màggal bu njëkk bi nga xam ne nag ñun ñëpp ñoo ko bokk mooy bis bi Seexul Xadim fanaan see Touba te Serigne Modou Moustapha waxoon ne ku fi fanaan jiwoon naa suñu borom mu jéggal la. loolu nag ñu ngi ñaan sëñ Abdou Khadir képp koo xam ne nii jotuwoo Touba te nga ñëw fii fanaan ko ñun ci biir Thiel loolee ci sëñ Modou Moustapha Karim doolum yàlla nañu dal te dama wax ne nag ji Abdou Khadir li ci kaas bi bu dee dëgg li ci kafteer bi di nax ndax ci lañ ko xellee waaw kon sëriñ Touba mën na loolu loolu bu ko ñaanal suñu borom mën na ko dana ko mañ am nañ ci yaqin kon nag loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel. bis boobu nag ñu ngi ko waxee rek mooy ñun ñëpp ko bokk murid ñëpp a ko bokk dañu koy dénk rek ñu koy saytu waaye murid ñëpp a ko bokk waaw kon nag euh, jëwriñ ñi bañ a guddal di dellu di ñaanit képp ku fi teew yàlla na la yàlla defal xéewal ci barke borom bis bi di ñaanal it njabootam duñ fi bañ yàlla nañ fi yàgg lool te wér ci barke sama sa barke borom tuddoo ji xam naa dina baat bi nga mujj wax it ci Touba ca kanam ne kenn ci jàmbaar yi euh, nga xam ne nii ci ñi ko njëkk siiwal ci rajo ak télé ci fii ci état yi ci nga bokk mooy émission bi nga xam ne nii yaa ko def daa ko def ca rajo Touba Daara Zingo ñi nga xam ne ba léegi dañ may woo sax di ma laaj léeg-léeg naa ma ana Abdou Khadir mooy leen rajo bi am problème bis bu ñu ko commencé waat dana ñëwaat kon nag ñu ngi lay ñaanal yow it lépp loo dugg rek yàlla nga dajee ngërëmal sëñ Bamba ci barke Cheikh Issa kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf jëwrin jërëjëf sëñ Ahmadou Diang euh, mbokk yéen ñi doon teewlu ci rajo Xasida online euh, Touba Monde bi Eh, ñoo ngi jaajëfal baax suñu jëwriñ sëñ Ahmad Diang ci taxawaay bi di ko ñaanal moom itam ci barke borom ko doos barke borom yi li yéeneem ci murit yal na ko am eh, mook Aliou kat naa leen koy wax ndax dafa am lu ma xam ci ñoom seen yéene buñ ko amee rek sëñ Muntaxa am li mu bëgg ci ñun eh, fii ma toog damaa toog sàng nit ni ma sëñ Muntaxa jëlee na wàll Sénégal jëm si France ma ne ko kon dey daa bëgg a lijjanti si àdduna ndax Europe yëpp la àdduna la jë te te bi bi bi bi bi bi mbas mi doog a tàmbali gis na ambassade Ukraine ak ambassade Russie ñoom ñaari ambassade ñu ànd dem ba sukk fa kanamam ni ko dama bëgg nga ñaan ci lii ndax jàmm am ci kon bu fekkee loolu dëgg la su tegee tànkam Europe jàpp naa àdduna mën na cee lijjanti ko ndax sëñ Touba daa doon koo xam ne yàlla sunu borom moo ko yàkkal mu mën a lijjanti àdduna ak àllaaxira bu mu ñuy wax ci moom nag dañuy jàpp ne dañuy daanu waaye nañu xam ne ba ñuy wax ci sëñ Touba màggal nañu yonant bi teg yàlla place am ba pare doog a ñëw nag sëñ Touba mi nga xam ni ci àdduna moo mas a wool ni kaay sant li ma yàlla kon sëñ Ahmad ñoo ngi lay jaajëfal bu baax yàlla na sa yéenu yegg ci mu murit yi di jaajëfal Baye Fall Thiam moom itam ci jumtukaay gi ndax doon na ma doon na wax sax ci loolu nga doon wax nu nu nu defee ba mu gën waaye yooyu yëpp ay waxtaan la waaw kon nag noo ngi jaajëfal ñëpp rek euh, ci barke maam Cheikh Issa mi nga xay moom lañ doon defal bis bi fii ci Milano jërë ngeen jëf. koy introsé. koo kon kenn nax ñoom te ci xam jàngam ak yu bi ñu jógee ci Ahmadou Dieng mi nga xam ne moo jiite fédération Darou Khoudoss ñu ñëw ci kenn koo xam ne yaakaar naa ni mbooloo mi xam nañu ko eh, rajo Xassida online xam na ko télévision Touba Monde bi moo ko moom eh, di ko jaajëfal bu baax ba tey ci ngoon ku déglu Papa Demba ak Baye Modou Tall te luñ fa mën di wax rek pourcentage am da koy fekk fa mu nekk kon bisu maam Cheikh Issa Diène bii euh, barki démb dañuy réunion am ku ma wax ma Cheikh Mbour mu ngi fi te dama ca ñëw ma ne ko kon de mbaa xam nga ni boo ci seex Mbour ñëwee micro central moo koy yor ñu am ñu wax ni waaw yéen ngeen réunion woon ba ni Abdou Khadir mooy micro central ma ne leen man maay Cheikh Mbour Cheikh Mbour man tamit du ma moom nekk ci place. di yor ab micro tam ne fa euh, nga ñëw mu taaru lool bis bi taaru lool waaye damay areer tuuti sunu sëriñ sunu sang sunu waay maag yow ak ñi mel ni nun yaakaar naa tournée leen tournée boo ren ku leen gis Vatican déggaat ci heure yi ñu toll mënuma atte cent pour cent dëgg la mënuma am cent pour cent du dëgg ñu wax ne Cheikh Moustapha dafa jóge Sénégal mi ngi ñëw France su fekkee lu am la jàpp naa day lijjanti àdduna su fekkee lu am la fekk na ma fii ma toog nag waaye ku leen seen Vatican yéen xolam sedd na sëñ Maam nga doon kenn ci moom te yaw ma yàgg la koo wax booba xam naa jàppoon nañu loola mënut a nekk nu dem ba a nekk tey yi nu tase fii ci Milan di fukki fan ak benn juróom-benn ci weeru tabaski di fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet Cheikh Issa Diène bàyyi woon fukki fan ak ñeent ci weeru tabaski. nga xay barki démb ci Daaru Salaam jenn lañ ko doon màggalal ñu jox ko njabootu Serigne Mbacke jenn ñoo koy def seex nga teew bi fii ci bis bi waxuma la ci jenn waxuma la ci lenn dama lay laaj rek ci Serigne Touba nga xam ni liñ naan ñaari kuy du ñu naanandoo ci mbalka sëriñ Touba dafa boole junniy kuy ñu naan ci menn mbalka li may wax nag moom xam naa ne naan guy dolliw mar la waaye nag du peeñu laaj la ko di jaajëfal Baye Fall bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax jumtuwaay bi euh, mi ngi liggéey lu rëy rëy ci yoon wi bisimilah sëñ Cheikh Mbacke mu géwélu Xaadimu Rasuul bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi sabilina wali wali barke borom tayif sadid lisaani nawil janan safi amani wasal barayi Cheikh Abdoul Khadir maa ngi lay delloo am nuyoo di la ziyaar ci bis bi nu génn muy Aïdul Moubarak bi nga xam ne mooy tabaski di la àq di ko sàkku ci yow yow yoon kenn àq di ñaan yàlla mi nga xam ne borom njëggal mu nu defal ak njëggal te teewe déwén yu bari bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam maa ngi yalwaan sa borom tabaaraka wa taala ginnaaw ba mu nuyoo ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak rajo xasida online Touba Monde bi di jàkkaarloo ak Touba Vision di jàngaarloo ak Touba Zingoña fu ñu mën di doon ci àdduna bi ci bii di bisub jëmm joo xam ne nii ku làq ngal mu Serigne Touba la maa ngi ci yelwaan san borom mu yàggal fi Cheikh Mamadou Mountakha ba doj ami xob sëñ Mountakha yàlla na yàgg ba doj ju tóor tóor ba ami xob bi jaay Seydina Mohamed wa ma zalika ala bi aziz lu yomb yàlla la bi may wax rek la Cheikh Tidiane Seck di di président association ASUSB ak sëriñ Mamour dem fa la tax mu dem fa leen rek la ku xam na ni inna diina inna waaye mu daarante ak euh, li nga xam ne mooy euh, waxtaan fi la ko fekk sëñ moo jóg dox jéegoy jàmm ndax day wax ne diine yi bu ñu jàmmoo nit ñi duñ jàmmoo ndax diine ci xol la sax loolu moo waral dox ba muy dox bu am solo mu yëkkati xasida comme fustu bi salbil ansanat goo xam ne jox ko mbindum alxuraan la da koy jox mbindum italien fustu bu ñu traduire italien jox ko euh, euh, Pape François wan ko ne ko Serigne Touba ku gëm Isa la ku gëm Sayyidatuna Mariama la ñaanal na ko waaye gëm na li yàlla wax ne xul huwallahu ahad allahu samad lam yëlid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad muy taxawaay boo xam ne sëñ bi ñeent rafetlu nañ di ñaan sama borom mu yàggal ko fi te may ko wér euh, sëñ euh, Abdou Khadir bis bi mu ñëw tey jàmbaari lislaam jàmbaari Touba wax naa léegi nii li gën a rëy ci njëkk ci jëfe murid ju ñu mën a teg bët muy euh, maanaam monument boo xam ne bu historique la muy jumaa yi njaareem ba ko taxawu mooy maam Cheikh Issa jëmm joo xam ne bi nga nekk sëriñ bi nekkee ci liggéeyu mburuy bii nga xam ne def na sababu xaybati ya anna allaha arada an anala min ujaa wa an akuna shafiyan li xawmi wa an akuna xaadiman fi daw mi nam ma suñu borom ci yëkkat samay daraja ma war doon ràmm sama ñoom war doon liggéey sama moo tax ma dem ci géej gi fu mu ci toll fu ne am na lu naa ko eh, eh, ku naa ko bu fàtte maam Issa Cheikh Issa ci liggéey bi kon kan loole di fàttali sëriñ bi mu doon jàmbari sëriñ ci addiya manoon ci mbay manoon ci liggéey jëmm jooju bu ñu koy fàttali bisam kenn ku ne war naa jaaju war naa jaaju ci lan ci gëm gu wér gu amul ak sikki sàkk ci jëf ju wér ju àndul ak gis nga liggéey ba sam ñax génn seex sëñ sëñ Abdou Khadre amul trucage liggéey ba sam ñax génn amul trucage te ci la maam Seex Isaa saxoon bi mu fi tamit ak njabootam ci la ñu sax kenn ku ne gis na Seex Mamadou Lamine Bara jenn jëfam kenn ku ne gis na Seex Bassirou jenn jëfam kenn ku ne gis na njaboot gi soqi koo ci ñoom seen jëf ci njabootu Serigne Touba yàpp naa ne day kuñ duggul ci armeeli Touba jaarale la ca maam Cheikh Issa saxel dana dal mooy waajukaay bi kon ma ngoog waxi Serigne Fallou te Serigne Fallou moom nag bi maam Cheikh Issa wàccee liggéey 1948 su ma juumul 48 moo di fukki fan ak ñeent ci tabaski di tey moo ni nan ko andi Touba yebali Cheikh Mamadou Bassir mu jëli ko mu taxaw ko andi ko Touba Mbacké. foog mu wàcce woon dañ koo def barab di ko siyaare ndax fa lañ ko gën a denc sëñ bi yëg ko ni ki tedd kooku andi leen ma ko fii yónni rakkam sëñ Bassir mu jëli ko. waaw xam nga loolu bu amul woon tey barkeelu bi ñuy barkeelu ko su ñu bi àjjo jaar la ci maam Cheikh Issa nga am yaakaar bi suñ fa lu moo dégg doomu suñ Bamba kenn du moom. comme mu ngi ñaan ci barkeb jëmm jooju yàlla yàlla doon jàmm ci réew mi eh, sëñ Abdou ay du yem ci bopp borom ay yu nekk ci Ukraine gi gis nañ jam jafe-jafe yi mu andi ci àdduna bi dund bi seer na lépp yokku na yàlla na ñu ñaan ñu ngi ñaan ci barke bi maam Cheikh Issa yàlla na ko yàlla fay ndax kat njaboot jàmmay mbokkam te sëñ Tuubaa xam ne Moustapha nee na jàmm kat xaw ma lu ko gën fii xaw ma lu ko gën fañ jëm kon yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ñoo ngi ziar soxna yi kenn du ñoom fu daayira sëñ Tuubaa nekk rek daayira soxna yaa nga ca ginnaaw ñu ngi koy ziar soxna benn jenn oh, eh, ndey xanaa mën nañ tubaab sëñ Mbàkke jenn sëñ naar ndeysaan soxna benn jenn moomu moo jiite jigéen ñi waaw kon mooy li nga wax ci jigéen ñi rek laa lay dëggalal. dëgg la soxna Mbaye ñu ngi koy siyaare di wax soxna maam Diarra moom soxna Oumy Serigne Falilou di di di di fàttali rek ne nañu gën a góorgóorlu ci suñu taalibe gi sëñ Abdou sëñ Tuubaa mënoon ñu ko defal lan lan lan dong nañ ko defal mooy defar suñu jëm ba ku la gis loolu loolu defar suñu comportement bu boo joxee wala nga jëf ñu ne kenn murid la ñu ah tubaarkàlla leen defal sëñ bi bu kenn yab yoon wi ci suñu jëm. bu kat di yoon yoon wi ci bu kenn yab yoon wi ci suñu jëf loolu lañ ko desal foofu la murid yi yëpp war a ne di ñaanal nag sëñ Amdi Moodu Mbend Fall mi nga xam ne mooy jëmmi Cheikh Ibra dafa àndoon ak sëñ Abdourahmane m sëñ Cheikh Fatma nag ku fi ne woon dëkk sëñ Cheikh yow lay jox boppam mu ànd ak sëñ Abdourahmane m sëñ Cheikh Fatma di liggéeyal yàlla ba yàlla dogal yelub Cheikh Ibra dab ko sëñ Abdourahmane ànd ak moom bëgg sëñ Muntaxa ni ko kii jëmmi Cheikh Ibra xëju ci ginnaaw kenn ku dul sëñ Tuubaa xoolal boobu grandeur sëñ Abdourahmane sëñ Cheikh Amadou Mbacke def ko loolu yéeme yàlla ko fi yàlla yàggal tamit ko wér ñoo ngi waajal bis bi Italie incha allah le 20 août la ci biir Thiel Torino koy soññee léegi kon ñoo sant ñëpp di ñaanal ñëpp nan woon nag bokk taalibe yi ñoo ak yéen nu am Abdou fii la tàmbalee. bu ñu demee ba àdduna bi dégg ñu Italie gi la tàmbale kon waa Italie man mënu ma leen a fay yàlla ma leen Serigne Touba fayal maa ngi siyaar média yi fi toog yëpp di siyaar kilifa yi sëñ euh, Mara sëñ Saliou ak ki nga xam ne moom mooy conseil général bi ñëpp dina ñaanal jàmm di ko sakku ci boobu bokk yëpp ñaan yàlla na yàlla dafa tawfiq yàlla buñ doon suñu mujj gisee wa axiru daxwana an alhamdulilahi rabbil alamina wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf jërëjëf Serigne noo euh, la doon bàyyi xel nag toujours plateau yi ngay def yëpp ak liggéey bi nga def ñi nga àndal doon ca am na ñoo xay xamuñu dëgg dëgg dëgg sa dimension waaye nun fan toog xam nañ li xew te it ñoddi bu dëkkul yàgg-yàgg dina dikk bu yàkkamti rek yàlla a sant mbokkum taalibe mu baax mu ñox Ibrahima Niang di taalibe Serigne Modou Kane lii moo ma ko jox juróomi huit vingt ngi ni yoo xam ne bu ci nekk juróomi huit vingt ngi ci nekk moo ma jox am kon Ibrahima Niang waa ko sëñ Modou Kane bu Touba Brescia di borom xam-xam yàlla yàlla gudd sa fan tamit wér sant ñu gërëm ñu suñu xol sedd na jërëjëf. jërëjëf Serigne Cheikh yéen ñu doon teewloo seen télévision Touba Monde bi kon ñoo ngi leen di jaajëfal naa bi ñu dalalee jawrin nag eh, foofu la ñu tënk plateau ba beneen yoon jërë ngeen jëf auzu billah mina seytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi yéen ñuy ci waxtu wi yéen a ngi ànd ak seen rajo xasida online télévision Touba Monde bi eh, waa adduna bi yëpp ànd di ñu seetaan ñu nekk fii ci Milan eh, ci bis biñ fi amal di ci ñaanal maam Cheikh Issa Diène waaye di ko ci sant eh, tey ji nekk gaawu le 16 waaye nekk gaawu Euh, fukki fan ak juróom-benn ci weeru tabaski te maam Cheikh Issa Diène mi ngi fi bàyyi ko fukki fan ak ñeent ci weeru tabaski yàlla dogal barki démb ci Daaru Salaam Diène la ko sëñ Abdou Latif moom sëñ Mbàkke Diène doon def ñaan gi ndax ñoom la sëriñ bi joxoon ndigal mu leen di ñaanal ñu toog nag ak kenn koo xam ne ginnaaw bi ñu jógee ci jëwriñu fédération yi mën na noo wax ni moom mooy jëwriñu jëwriñu fédération yi. mu boo doon koo xam ni eh, doon na lu bari ci njenne waaye ci yëngub àdduna itam ñu xam ko ci man danaa koy tooñ sax di ko wax ne ko sa ngor moo lay xañ mu bari ndax boo xëccoo doo def dara te léeg-léeg am loo moom mayee ko kon bu nu toogee moom ci bis bu mel nii muy sëñ Aliou Guèye doon kenn ci njabootug borom njenne gi dëkk ba mu cosaanoo itam doon dëkk boo xam ne cosaan la ci njenne kon bu nu tajee ci bis bi dana nu ko jox kàddu mu sànni ci ay kàddu sant mboo mbokki taalibe yi waaye itam li ma koy wax rek dama ne ko dama koy wax ni ko waxal ni nga ko bëggee sëñ Sam mën na ko noonu waxuma sax sëriñ Abdou Salaam mais sëriñ Abdou yebal waaye kenn ci donga yi képp war naa mën a faj sa aajo kon sëñ Aliou noonu lay jox kàddu gi ginnaaw buñ la jaajëfalee ci wees di la ñaanal tam ci yi jëm loo ci yëngu rek yàlla na ko suñu borom jàppandil ci barkanam Cheikh Issa Diène bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sama jëwriñ Cheikh Abdou Khader maa ngi lay saare bu baax di la ndokkeel ci di la ndokkeel ci bis bi euh, di la sant bu baax di sant waa télévision bi. ci occasion bii ñu may ñu waxtaan ak àdduna ñu commencé suñuy kàddu nag di jaare Cheikh Abdou Salaam mi nga xam ne tey Cheikh Abdou Latif lañ koy xoole ndax ndaw nag ka ko yónni moom lay tollool dayo ñu ngi koy jaar bu baax a baax di teg jaar bi ñu jëmale ci waa njenn yi fi nekk yépp ci loxoom waaye di jaar tam suñu jëwriñ fii ci dëkk bi di sëñ Moussa jenn nga xam ni mooy leeralal yoon wi ci liggéey bi nga xam ni moom lañuy liggéey jëmale ko ci Cheikh Issa di ziar waa fédération bi yëpp nag di ci jiital sëñ sii di Diop suñu jëwriñ ak euh, sëñ Ka ba së Baye Talla nga xam ni moom mooy yore kàddu sëñ bi dox suñu digganteek moom kon ñu ngi ziar bokki taaliba yëpp yow di la ndokkeel nag di la ziar ci sa taxawaay ci daayre bi ma wax ni tey jii li nga xam ni moo ñu fi indi te ñu jiital ko mooy nekku taalube ndax bis bii kat day sunu bis nun waa njenn yëpp moo tax fépp fu taalube njenn nekk ci réew mi bu ñëwee dangay bëgg ñëw di ko fekke te noonu lañ daan ñëwee di ko fekke kon loolu la ñuy jiital di ci jaar bokki taalube yëpp di ci ndokkeelaat Cheikh Latif di ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi ba li mu yéenee àggale ci eh, liggéey bi nga xam ni maam Cheikh mi ngi ko doon liggéey te muy lu fës nag ci yoonu murit defe naa ni loolu xaju fi kenn du ci dellu si waat ndax conférenciers yi danañ ko wax ma wax ni ñun danoo amul lu dul njenne lu ñu yaakaar ci yoon wi tam bu jaarul ci Cheikh Issa mën nañ koo gedd nun foofu lañ toll ci yoon wi ndax sunu waajur kat eh, ba muy tuut tànk lañ ko jëbaloon Cheikh Issa ba keroog Cheikh saa yàlla dogal ci moom la ko neex keroog ba ko yàlla di dogal bokk na ci ñi nga xamante ni nii fekke nañ dogal boobu guddi gi sëñ Baara jëkkee ne nekk ci néeg bi nga xam ni moom la ko Cheikh saa bàyyee bi mu daf maa nettali ni ma bi sëñ bi woo taalibe yëpp ni leen damaa bëgg ko mu wéttali ci guddi gii ma jëkk war a jëkk fanaan fii ñëpp dañ ko ni ah ñun de jenn ñemewuñ ko nee na ma ne ko ah man de boo ma joxee ndigal ñeme naa nee na mu fanaan fa ak moom am na jël bu koy dikkal boo xam ne foofee la ko jële woon ci guddi googu kon sun lépp nun njenn la lu nu am ak lu nuy yaakaar weesuwal kër Cheikh Issa kon nag ñi ngi seedeel bokk taalibe yi lépp ñi ngi leen di seedeel loolu bu loolu jàllee itam comme ni nga ko waxee bu yàlla dogalee ci nun li mu dogal ci nun nu jiite tey jii liste wallu Sénégal ak yeewi askan wi ci département Europe du Sud jaadu na tey nu ñëw fii sàkku si fi ñaan ndax sunu yaakaar nag rëy na fi te ñu ngi fiy sàkku ñaan yàlla dimbali ñu ba yan boobu nga xam ne nii moom lañ ñu teg muy ay responsabilité ndax damaa wax ni ku yaakaar ni ñu def la député ak pal la bu boobaa da ngaa xalaatul li ci yàlla wax ak responsabilité yi nga xam ni ëllëg dañ la koy laaj boo xalaatee loolu doo ko def ak pal mais da ngay jàpp ni ay responsabilité ak yan la boo xam ne nii dan la koo yan kon nag ñun ñi ngi ñaan ci bis bi ci borom bis bi comme ni nga ko waxee ak setam yu baax yii fi nekk lépp loo xam ne nii ñi ngi koy dagaan te njariñul Sénégal dong tax nag njariñul dara génn ci njariñul Sénégal kon ñi ngi ñaan ci bis bi yàlla defal nu xéewal googu noonu bu nu ko defalee ba pare mu may nu pas-pas ak euh, ba li taxoon ñu fal ñu ko du ñu ci weddi dara du soppi dara ci nun ndax loolu nag dafa am solo te ñu ngi koy ñaan yàlla te am nañ ci yaakaar ndax bis bii kat ni nga ko waxee yaakaaru na lool lool lool lool lool lool te nun xam nañ ci dara ndax ci la nu màgg ci la nu judd ci la nu gimmikoo ba toll nii nu toll kon nag ñi ngi ziar bokki taalibe yëpp di leen wax ni ku ñu bëgg jàppale tam ci bis bi la 31 liste wàllu Sénégal moom moo nekk Europe du Sud maanaam Espagne ak Portugal ak Turquie ñu ànd ko ak waa Yewwi muy waa Pastef ak yeneen parti yi nga xam ne yëpp ñu ngi nekk Yewwi Askan Wi mais fii ci département bi kuy wote da ngaa war a wote liste bi nga xam ne ci la président Ablaye Wade nekk ndax ci la député yëpp nekk ci la député Yewwi nekk ci la député wàllu nekk kon bu ngeen demee ci bureau de vote yi di ngeen fa gis député yi maanaam carte Yewwi Askan Wi waaye bu ko kenn laal ndax nguur gi li mu ci jublu mooy indi ko ci bureau de vote yi bu ko defee ngeen juum wote ko. mu wàññi li ñu waroon a am pour ñoom ñu gagné departement bi kon nag loolu maa ngi koy moytuloo ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañoo jàppale bu ko defee liggéey bii nga xam ni tàmbali nañ ko di liggéeyal askan wi di liggéeyal association yi di liggéeyal daayira yi di liggéeyal réew mi yàlla dimbalinu ban man koo yóbbu fa nga xam ne nii fa la ñuy décider ci réew ma ndax nag sunu baat tuumuranke na fa trop kon nag jaadu na tey jii nu am ay représentants yoo xam ni sunu demee ci loolu la ñuy wax ci loolu la ñuy def kon ñi ngi ziar ñëpp ah xam naa ni jot gi moom bariwul te ñëpp ñu ñëpp dañoo war a déglu conférence bi kon sëñ Abdou Khadir ñu ngi ko yemal foofu di la ndokkeel nag bu baax di la sargal ci liggéey bu am solo bi nga xam ni mënuñu koo def waroon koo def te nga nu koy defal yéen ak ñi nga xam ne yéen a séq daayira bi waaye nun daal fu ngeen nu gis ak fu ngeen nu gisul ak lu ngeen di def xam leen ni sunu xol a ngi fi sunu xel a ngi fi yàlla yàlla faj aajo yi ci barke Cheikh Issa mi nga xam ne mooy borom bi jërëjëf jërëjëf sëñ Aliou yàlla bu yàlla tas yaakaar ci barke maam Cheikh Issa Diène yàlla nañ ko am ni nga ko bëggee danaa wax ni Sénégal fi ñu juume mooy fi ñu ne ku baax wërta politique ñu baax ñi dañoo war a politique bu ñu baax ñi politique yi jël lu baax li yor ko ñun ñu baax ñëpp ñu jariñu ci waaye bu ñu ko bàyyee sàmba boo yi rek ci li nu nekk rek la ñuy nekk ndax yàpp naa tey ji bu ñu sëñ Mountakha wala sëñ Mbaye Mansour mooy président de la république bu Sénégal jàpp naay Sénégal weñ sax weñ sax du mer sang leen du mer kon ñu baax ñi fu ñu jaar jël seen alal dafay tolloon nag góor gu baax ndax maa waxoon day am na ñoo xëy ni comme bu ñu séddoo ñëpp gedd seenub cër dañuy yéex a séddu waaye jàpp naa ñun ñëpp daan séddu bu soobee yàlla jërëjëf. برأني وكب من أنكر باغترابي براني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باغترابي براني الباقي من الأمراض وكب من أنكر فاز